yàllaaw asaaray mulaasi arjo biramati ala ula hiya dur an minka yàllaaw fédération daayira Maam Jaara yi nga xam ne ñoo nekkee ci dakaar ak li ko wër yi nekk ci région yi ci Sénégal ak ci diaspora bi ñoo ñëwoon fii ci Touba Mbacké fekk si ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkee ci kilifteefu Serigne Issakha Mbacké moom Serigne Bassirou ñu amal fii ziar bu yaatu ci kanamu Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides leeral ko liggéey yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy amal ngir dajale mboolem daayira yi maam jaara yi ci benn fédération ci njiitalu soxna maam jaara waaye it ci ziar bi leeral nañ sëriñ bi liggéey bi nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak fondation maam jaara ak projet bi nga xam ne am nañ ko ca daaray maam jaara ja mu jëm ci bâtiment bu mag boo xam ne moom lañ fa fas yéene liggéey loole sax biñ ko leeralee sëriñ bi am na ci mbégte lool ba jàppal leen bés boo xam ne ca lañ war a teg njëkk lépp loo xam ne rek moo jëm ci liggéeyu fédération daayira Maam Jaara bi leer nañ ko sëriñ bi kon mbokk yi ñu bàyyi leen ngeen teewlu kàdd yi nga xam ne moom lañ fi yëkkati. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon mbokki taalibe yi ci kàddu soxna jaara buñ leen nuyoo leeg sëriñ bi ba noppi xamal sëñ bi na ko soxna jaara ñëw na ànd ak bokki taalibe yi ñu mu bëgg a àndal liggéeyal sëriñ Touba. ca ndakaaru googee sëriñ bi soxna jaar daa waxoon ne bu ñëwee ma jotti la ci am nuyoom akub siyaareem wax la ne la dafa am yéene ak pasteef te ci jàppale la ci liggéey bi sëriñ Touba bii ngay liggéey rawatina mu bëgg laa jàppale ci liggéeyub turandoom wa di soxna jaara mu bëgg a fetlik laxasaayam ak bokki taalibeem yi mu àndal ngir ñu taxaw ci liggéey ba seen kem kattan day jéem luñ mënut lépp nag sàkku ko sa ngërëm ngërëmul soxna jaara ngërëmul sëriñ Touba moo wax ne bi mu suuboo ci liggéey bi daa dem ci sëriñ Isaaxa sëriñ Isaaxa teg ko ci yoon xamal ko ne ko na nga tàllal sa loxo bokki taalibe bi yëpp ku ku la wuyu si na nga ànd ak moom fas yéene liggéey sëriñ Touba ci toolu maam jaara te ngeen dem Porokhane xam fa liggéey bi toll ngeen fas ci yéene jàpp non non ko defee ci la jóg ci taxawal fédération bi fédération bi itam mi ngi yàkkali ko bu baax ndax ñii fi daje ñëpp sax ñëwuñu ñu mën a ñëw rek ñoo ñëw mu ne woon tam da leen tudd rek ay tur ñoo xam ne seen taxawaay ak mbooloo man jiite moo ko waral mu ne ginnaaw bu mu ko jiitee moom soxna jaara dafa am duñu wax daayira Sindiidi soxna Ndey Mbaw joxaane jiite ko moom waa banque business Serigne Kànn Guèye Serigne Gànn Guèye jiite ko ak sëñ Malamine Diouf ak daayira Masalikul Jinaan bi nekk France ci Montpellier ak daayira université soxna Ndeye Dieng jiite ko ak daayira Xidmatul Xadim Dakar Yoof sëñ Mouhamadou Sarr jiite ko ak daayira Maam Jaara Touba Dagana sëriñ Ahmadou Sow jiite ko ak soxna Fama Sow ak soxna Maymuna Dieng ak soxna Anta Diop mu ne nag liggéey bi it dañ ko tàmbalee noo xam ne dañ ciy sàkku sag ñaan ndax lañ ci yéene ñu mën ko àggale mu ne dafa am ci bokkoon ci seen i seen i lépp luy taxaw ca daara ja lépp lu luy yoppal luy yombal daara ja lépp lu koy yokk ñu nekk ca ñu defar lu plan bi nga defar ci ab ay dortoir ay bâtiment yoo xam dañ koy dëkkee bâtiment bi R plus 3 la da war naa war nañ war nañ cee ñàkk ñaar téeméeri million mais defar nañ plan yi ba noppi ba war koo def te loolu ab tàmbali lañ ko jàppee ci poroxaan ca daara ja ca daara ja moom kay ne seen seen man gépp seen yëngu bépp ci daara ja lañ ko bëgg a jëme lépp luy yokku daara ja nee na daa bëgg bâtiment bu fa neppee bu noppee itam dañuy tàmbali yeneen dañuy ànd ak yow ànd ak daara ji rek luñ dajale luñ am ci daara ji la jëm loolu nag loolu lay seetal pësteefu mbooloo mi mu àndal nee na mbooloo mi sax ànd taxawu daara ja lañ ko tuddee ànd taxawu daara ji lañ tuddee mbooloo mi mu àndal kon nag ñu ñaanal ko ba sébbam yéeg nitir yéeg yéene yëpp mu man ko àggale ndax sa ngërëm rek la ñuy sàkku kon nag mu ngoog lépp ngi noonu waaw delloo bu baax a baax a baax bokki taalibe sëriñ bi daa wax ne dañ koy jottalee nuyoo soxna a mu ànd ak seenu nuyoo yi ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di delloo ab nuyoo bu baax a baax a baax nee na moom itam mi ngi leen di siyaare bu baax a baax bi nga xam ne eh, seen seen seen seen taxawaay bii. te seen taxawaay bii. yëg naa ko lool. yëg na ko lool. sori na ci man lool. nee na sori na ci moom lool. xol sedd na ci. na xolam sedd na ci. xel gën na cee dal. xelam gën na cee dal. yaakaar gën na cee dolli gën na cee dolli ko. sant daa mënta na sant daa waaye kon mu weesu koog yéen. da ngeen xam ne. waaye na ngeen xam ne. yéen ji leen yëkkati. yéen ji leen yëkkati. ak Pastef bi ngeen àndal. ak Pastef bi ngeen àndal. ak yitte ngeen di ji ngeen di yëngatoo. ak yitte ji ngeen di yëngatoo. lépp xam naa nee na lépp xam na ko. waaye lu ma ko xam-xam. nee na waaye lu mu ko xam-xam. borom mi ko def ci yéen. suñu borom mi ko def ci yéen. moom moo ko gën a xam. moo ko gën a xam. Sëriñ Tuubaa mi tax ko ci yéen. ko ci yéen. moo gën a xam. moo ko a xam. kon na seen xel daal bu baax a baax. kon na seen xel daal a yoon waa ngi noonu. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf doxin wi weesuwul weesuwul weesuwul dëddu àdduna. doxin wi weesuwul dëddu àdduna. ak soobu yoonu yàlla. ak soobu yoonu yàlla. lépp mi ngi ci biir loolu. lépp mi ngi ci biir loolu. dëddu àdduna teewul a sol mbubb. dëddu àdduna teewul a sol mbubb. teewul a lekk teewul a naan teewul a a am foo dëkk. teewul la denc. teewul a denc. li ci am solo. li ci am solo. sa xel mépp. mooy sa xel mépp nga jëmee ko ci yàlla nga jëmee ko ci yàlla sa xol ko ci nga jëmee ko ci yàlla nekk nekk ci loolu nekk ci loolu ca sax ca dàkk sax ca dàkk la ngay def ci lu baax lépp la ngay def ci lu baax lépp nga di ko jéem sa kem kattan nga di ko jéem sa kem ko def rek te yàlla tax di ko def rek te yàlla tax leneen safaan ba leneen lay safaan ba leneen lay safaan ba leneen lay safaan ba nga di ko jéem a xam nga di ko jéem a xam di ko jéem a daw di ko jéem a daw sa xelu bakkan sa te yàlla tax te yàlla tax neen noonu nga la demee yonent yi suñu borom yónni ci nit ñi. nee na yonent yi suñu borom yónni ci nit ñi. ak ku mel ne sëriñ bi. ak ku mel ne sëriñ bi. loolu dong leen fi andi. dong leen seq ak noonu. loolu leen seq ak noonu. kon mu ngoog rek. kon baa ngoog. gënante baa ngoog. rawante baa bu baax. kenn gënu cee yey kenn. ku gën a bëgg rek. ku gën a rek. ku gën a rek. ku a góorgóorlu a rek. moom <laughs> yow yow yaa na ci yaa na la lay jëriñ. yaa na ca la lay jëriñ. yaay soññi it na nga ko bokkal. yaay soññi it na nga ko bokkal. kon waaw leen góor. kon waaw leen góor. yéen waaw leen góor na yéen waaw leen góor rek la leen di wax. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. sant nañu bu baax a na sant leen bu baax a baax. wax dëgg yàlla euh, maam Diarra jur gi ma ko jur. nee na wax dëgg yàlla maam Diarra jur gi ma ko jur. taxul taxul taxul Euh, fépp di maanaam maanaam gi njuréel gi jotuwul ak dara li nga xam ne moom laa gis ci moom mu ànd ko man nee na maam jaara bi moo ko jur waaye njureel gi jotewul dara ak lim gis ci moom te mu ànd koog moom te loolu bu ko waxee mooy Pastef rek ak taalib rek mooy ñor sëñ bii Pastef mooy da koy ñor loolu gis ci maam jaara ba ba jàppee ko lim ko jàppee ba jox ko lim ko jox diggante moom diggante nit ak waajuram ku ne rafetal la yàlla digle nee na diggante nit ak waajuram ju mën a doon sun borom lam ko ci digal mooy rafetal ga ba waxee ne na ngeen ma jaamu rek da ngeen da wax na ngeen rafetal seen diggante seen waajur ma sun borom ba waxee ci alxuraan ne na ngeen ma jaamu da caa teg ne na ngeen di rafetal seen diggante ak seen i waajur. maam jaara nag jëlale na moom sama diggante ak moom. nee na maam jaara nag jëlale na diggante moom moom ci rafetal suñu borom. mi ngi fas yéene nekk ci li la nekk rek. mi ngi fas mu war a nekk. fas yéene sax dàkk ci nekk ci li Serigne Touba bëgg. kem kattan. fas yéene sax dàkk ci liggéeyal sëriñ Tuubaa. fas yéene sax ci lépp lu baax nag. lépp lu baax loo xam ne xam la rek. lépp lu baax loo xam ne xam na lu baax la. am ci yéene def ko te yàlla tax. am ci yéene def ko te yàlla tax. loolu ku ko doxee. nee na loolu ko doxee. doo ñëwee malaayika yi sax. doo ñëwee malaayika yi sax. jeex na takk dana sëkk. waaw ndax liñ ci mën a dolli da mooy maam Jaara mii seen jataay bii lii ko sëñ bi seeral moo leen ko may fi barab bii sëñ bi ngi fi door a toogaat bi ñu tàmbalewaatee ba léegi te may ko maam jaara tax te maam jaara yitteem jii mu seet ko seetal moo tax may ko loolu rek doy nañu seet jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku taalibe yi ñoo ngi seer si leen siyaar bu baax a baax di leen baalu àq di leen baalu àq ñaan suñu borom boo ñu jéggal te defal ñu ay xewal yu bare bare barke borom Touba mbokk taalibe yi boo leen gisee mbooloo mii mooy mbooloom fédération daayira mam Jaara ca Ndakaaru ci njiital soxna jaariyatullaahi Mbàkke bintu sëriñ Muntaxa tey ji ñëwoon siyaar si sëriñ Muhammadul Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér wanaale ko suñu liggéey yi nga xam ne am nañ ko yéene liggéey fee ca Poroxaan mu doon liggéey yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne bëgg nañ ko tàmbali ci 2021 bii di siyaar ñëpp rek di jégalu xanaa xol fees rek ci di sëñ Muntaxa wax ci fédération bi mu doon fédération boo xam ne sëñ Muntaxa seedal na leen seen pastéef ci ànd gi ñu ànd ak daara yi soxna jaaratulaahi gee muy daara joo xam ne képp ku fa ne turandoo soxna jaara la muy daara joo xam ne bu soxna jaaratulaahi nekkoon fii nii ci kaw suuf na la wóor ni moo koy taxawul boppam kon képp koo xam ne def na kuréel di ko taxawul soxna loolu liggéey bu am solo la kon loolu lañ ci bëggoon a dëkkal ay kàddu di bàyyi kàddu gi rek pour leeral sox sëñ naar jenn mi war a leeral projet bi nga xam ne won nañ ko sëñ bi mu doon projet boo xam ne toll na ci deux cent millions ñu war a tabax a bâtiment dortoir fee ca daaray Poroxaan kon sëñ naar naa la bàyyee kàddu nga yeggal mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi xalifatul am di cheikh mouhamadul muntaka di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te dolli ko wér waaye di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi soxna maam jaara bint cheikh mouhamadul muntaka mi nga xamante ni mooy jëwrinu fédération de daayira maam jaaratullahi bu so tey ñu ñëwoon ci pàkk bu sell bi di Touba ñëw ci pinc mu sell di pincum seex mouhamadul basir fekk si fi ku baax fekk si fi sunu sëriñ di cheikh mouhamadul muntaka euh, lii nag lenn la ci mbooloo mi nga xam ni ñoo ànd ak soxna jaaratullahi mariama so ci ndigalu sëriñ Isaaqa Mbàkke ngir mu jot ndigal ci moom yaatal euh, liggéeyu maam jaaratullahi Mariama Boussa ñu tudde ko fédération de daaira maam jaaratullahi Mariama Boussa bu sowwu jant ñu ànd ak jëwrin ji euh, soxna maam jaara bint Cheikh Mouhamadul Muntaxa waaye ànd ak lenn bokk lenn ci bokk yi ak lenn ci xarit yi ak lenn ci soppe yi ak lenn ci taalibe yi ñu ñëwoon tey jébbal si seenub liggéey ci sëriñ bi euh, yéen a ngi doon dégg kàddu sëriñ bi ci wax dëgg yàlla seede yu sedd yi nga xam ne andi na ko ci soxna si soxna si sëriñ bi wax ci kaddu boppam ginnaaw bi mu sante mbooloo mi ñaanal leen soññiwaat leen wax na ni soxna jaariyatullaahi de nekkul ni njur gi dox digganteem ak moom waaye nag ak pëstéefam ak yitteem ju kawe moo ko may lii moo ko yóbbu fii mi ngi koy bàyyi xel bu baax. kon euh, euh, ñu am ay procès ak ay yéene yoo xamante ni fédération de dairatu maam jaaratullaahi bu sowwu jant ci njiital soxna maam ñu am liggéey yu am yéene simb ko fee ca Porokhane mooy ay barabi nekkuwaay di ay dortoir di ay euh, euh, euh, barabi jumtuwaay yoo xamante ni dañ ko bëgg def ngir mu méngoo ak jamono plan bi mi ngi toll ci deux cent millions moo ko war a liggéey bëgg koo liggéey ba méngoo ak jamono nag ci xam ne soxna jaariyatullaahi Mariam bu sa lépp lu waay di wax ci méngoo ak jamono ak rafet ak taaru kooka moom lañ ci war a jiital. turandooy soxna ya fa nekk ak mboolem jàngalekat ya fa nekk ak mboolem ñay saytu daara ja bëgg nañ képp ku fa ñëw gis fa liggéey soxna jaara waaye gis fa liggéey fédération de daairat maam jaaratullahi mariam busa document yi ngeen gisoon ñu di ko jébbal sëriñ bi noonu euh, soxna si doon ko ko leeral kon daal tey dañoo ñëwoon fii ngir si siyaar si wa ànd ak mbooloo mi yëpp waaye ànd ak bokk ànd ak bokk yi nga xamante ni ñi ngi bitim réew te ànd ak ñun liggéey bi euh, ñoom ñëpp ñi ngi leen di jaajëfal di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam waaye di ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu xéwal defal ñu tawféex defal ñu sahaadatu daare ni di ñaan soxna maam jaara bint Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na ko fi suñu borom yàggal te dolli ko wér ba li nga xam ne yéene na koo liggéeyal waajuram mu sell wa suñ borom defal ko mi ngi noonu mbooloo mi di ko siyaar kon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokkum taalibe Serigne Naar Dieng surtout Cheikh Aïssa Dieng moo doon addu di yëkkati ay kaddu rek ñi ngi jéglu bu baax a baax di ziar waa académie Minane ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ca suba ba léegi ñi ngi ànd ak ñun jotaay bi euh, taluñu dara ngir bëgg génne image yoo xam ne dana méngoog jamono waaye ñi ngi leen di ñaanal seen kër gi fu ngeen bëgg mu àgg fa suñu borom àgg leen fa ngeen dem ba mu àgg fépp ci àdduna bi doon ay télévision yu bari barke Xaadimu Rasul barke Serigne Mountakha Mbacké Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg tànd ak wér jërëjëf Cheikh Aïssa Diène wasalaamaaleykum wa rahmatullah buñ ko tàmbalee nag di ñaan yàlla ñëwaat fii ak jàmm ñëw jébbal ko lii nga xam ne moom mooy caabi bu boobaa ñëpp am taw féexu seeni maam jaara mën faa tàbbi ndax ku ne xam na ne liste d'attente bi même ci Europe sax liste d'attente yaa ngi taxaw te am ñoo dugal soxna jaaree ci daara ji loolu daal nekkoon na tey ji tànk yi nga xam ne moo yëkkati soxna maam jaara mu boole ko indaale addiye joo xam ne bii dafa dem ca université ba bii ñu du jox ko baayam bu tedd bi mu mën koo wëyandeel ci liggéey bii nga xam ne moom la nekk fii nekk fi Cheikhul Khadim loolu daal moo nekkoon suñuy tànk di ko ñaanal di ci woo ñëpp di wax ne pour dugg ci fédération bi da ngay jënd carte membre soo jëndee carte membre ba pare weer wu dee wu nekk dangay jokk ci fédération bi juróomi téeméer juróomi téeméer yi ñaar téeméer yi day dugg ci liggéey ba nga xam ne moom la ñuy def ca daaray soxna jaara ja benn ñaar téeméer bi dañ koy dugal ci parrainage bi ndax sox sëñ bi dafa def lu am solo ci daara ji muy parrainage yaayu daara wala baayu daara loolu boo ko gisee mooy dangay daal di yor am soxna jaara ca biir daara ja saw ñaq di ca dem ngay mën di ko dundal di ci liggéeyal sa borom ci kaw loolu mooy boobaa téeméer ngay def far bés mu doon weer wi ñetti junni at wi doon fanweeri junni ay juróom benn loolu daal ñu ngi ciy woo ñëpp di ci sàkku ñëpp ñëw di jàpp ci nga xam ne liggéey boobu dina mën a dem beneen ñaar téeméer bi ci des dañ koy def ci liggéeyu daara ja téeméer bi ci des ku ne xam na ne mbooloo muy ànd day am social te Soxna Maam Jaara mi ngi def social bu am solo ci loolu barki démboo Njaay lañ jóge ca daara ja yóbbu fa ay bool ay yére ay palaat mu ànd kook fédération bi ak képp ku bëgg lu baax rek ñu dem seeti ko waa daara ji ñu ngi ciy woo ñëpp di ci sàkku nag ñaan ñëpp ci lii nga xam ne moom la ñu tàmbale ndax suñu xel suñu xel dafa dal tey ji ci li ñu dégg sëñ Mouhamadou Mountakha wax ko ci soxna maam Jaara Mbàkke ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant salaamualeykum wa rahmatullah. soxna maam Jaara Mbàkke moom sëriñ Mountakha Bachir santaat na bu baax a baax mbooleem fédération daayira maam Jaara bi. ak mbooleem daayira Maam Jaara yi nga xam ne ñëw nañ ànd ak ñoom liggéey bi lépp boole ko mu doon benn fédération waaye santaat bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne dugal nañ seen àddiya ci ziar bile waaye ñaanal ñëpp ziar bi ñu daje seeg tawféexuk sëriñ bi ñaanalaat sëriñ munta Mbàkke Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di sant subhanahu wa taala ci eh, may gëm nu may eh, ñu bëggoon eh, ziar bi di ko waajal bu yàgg ba tey te may nu ko tey jii ñu ñëw fii ci Touba ngir ziara si sëriñ Serigne Mountakha xalifa général des Mourides di sant bu baax Serigne Touba Xaadimu Rasuul sunu yaakaar yi tey ak ëllëg di sant soxna jaaratullahi Mariama mi nga xam ne moom la liggéeyal ci toolub lislaam di sant nag e, mbooleem rek e, daayira maam jaara yi nga xam ne noom la àndal liggéey bi waaye di santaat bu baax sëriñ Isxaqa mi nga xam ne moo nu ko santoon ñu nekkoon ci Eh, di di di ko dajale ba yàlla dimbale nu nu am ci lii tey di ko ñaanal sunu borom ba mu guddal fanam wéral cëram eh, di ko santaat bu baax ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci diine ji ci xam gu mu xam booloo ni mu amee solo mu taxaw ci lool nag eh, sant nu ko ñu def ko sunu borom dimbali na ci ñu tase ceeg nag ñu doon wër lu baax bëgg lu baax bëgg a liggéeyal soxna jaara mu boole nu fii nag ci fédération dakaar bi di sant bu baax nag mbooloo mi yëpp wax dëgg yàlla di leen wax ne daal amuñu seen fay ñoom dañu may sant fu ñu toll waaye di ma di leen bëgg a wax ne rek man mi maa leen war a sant ndax li ñu ànd di ko def day ak jaamu yàlla goo xam ne kenn mënu ko faaw rek dangay ànd ak say mbokki taalibe say mbokki jullit yoo xam ne yéen a bokk bëgg-bëgg bokk pas-pas bokk yéene bokk yoon wu ngeen bëgg a dem bu ko defee nag boo leen amee ngeen ànd nag daal di dox kon man maa leen war a sant man maa leen war a gërëm maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ñi may wax nii ñoom laay tuddi jàmbaari maam jaare yi ñi ma àndal liggéey bi di leen wax ne seen pas-pas ak seen yéene moo ma indi fii tey ma am seen bu rëy ca daara ja sémb boo xam ne bu doon man rek duma ko ñemee def waaye ñeme naa ko ndax am naa ci yàqin ci ne samay mbokki taalibe dinañ ko ànd ak man ngir xam naa seenu bëgg lu baax waaye xam naa euh, tawféex gi ñu am ci liggéeyal soxna jaara ci toorub lislaam bi euh, kon euh, jàmbaari maam jaara yi daal maa ngi leen di santaat bu baax di leen ñaanal bu baax li nga xam ne ñi ngi ci ñi ngi ko bokk di ko def muy loo xam ne lu ama am solo la liggéey sunu borom la bu sell boo xam ne dara raxu ci di ñaan nag yàlla bu mu am rax mukk yàlla buñ ci gis suñu bopp mukk ñu xam ne liggéeyub Serigne Touba kenn doonu ci dara muy man muy sama moroom ni ko mag ñi di waxe barigo ci mbartal la rek kon ku yàlla dimbali ba nga teg ci sa loxo mu mel na yaa koy doxal te doonoo ca dara nga war a sant kon maa ngi ci soññaat sama bopp bu baax di ci soññ mboolem samay mbokki taalibe di ci woo ñëpp nag di ci woo jullit yëpp ndax du du liggéeyub eh, kenn ci li ñuy wax tarixa yi ñëpp ko bokk ndax liggéeyub sunu borom bu sell la sëriñ sëriñ Tuubaa ñëpp ko bokk soxna jaaratullaahi ñëpp ko bokk kon maa ngi ciy woo ñëpp rawatina nag samay mbokki taalibe muy daa daayira yëpp nag muy daayira soxna yi di di rey góor yàlla yi ndax nag eh, dama dama faral jigéen ñi soxna yi ba ñëpp xam ko waaye xam naa ne góor yàlla yi bi ma ci tàmbalee ànd ak ñoom ba tey gis naa ci yokkute bu baax a baax a baax a baax a baax kon maa ngi ciy woo soxna yi waaye maa ngi ciy woo góor yàlla yi di ñaan nag suñ borom ba mu dimbali nu ba nu yóbbu ko fan ko bëgg a yóbbu ci eh, taxaw temm ci yëkkati mbirum Serigne Touba yëkkati mbirum soxna jaaratullahi Mariam waaye lépp rek day dellu ci yëkkatiwaat yëkkati diine ji ndax seen mbir yëpp génnul foofu kon maa ngi ciy woowaat ñëpp rek di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di leen sant yéen waa mi Minane ci seen taxawaay yu am solo yi nga xam ne yéen ngi koy taxaw ci liggéeyi Serigne Touba yëpp di leen ñaanal ngeen yokk ba yëg ko di ñaanal sama mbokki taalibe yi daal nga xam ne lu ma leen ñaanal rek doyul maa ngi leen di ñaanal bu baax ñoom ñoo may sant waaye man maa leen war a sant kon yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla yokk ci ak wér ci ay xéewal ci gën a bëgg lu baax ci gën a bëgg euh, soxna jaaratullaahi ci gën a dund sëriñ Touba ndax loolu kat mooy sunu njariñul tey ak ëllëg kon maa ngi leen di santaat bu baax a baax rek di wàccee foofu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.